bisimilah barke bam Touba kon ñu ngi fii ci kër sëñ Touba gi di waajal bis bi nga xamante ne bii sëñ Mouhamadou Mountakha moo ko digle santaane ko muy ñaari fan ci muharram dëppoog 11 mercredi 11 août 2021 muy bis boo xam ne li mu ci santaane mooy xëyee njàngum euh, xasida 7 heures du matin ba muy bis boo xam ne lam ca fas moom moo ko xam dañ koy bàyyee ak ñun suñu wàll mooy dus jàng xasida sëñ Touba yi ak taxaw nit ñi ci ñu bañ a ci lekk ak naan ak ci ker ak ci fi ñu toog loolu nag ci lañ ñëwee tey jii suñuy mbokki taalibe suñuy mbokki murid saadax yoo xamante bi naka jekk ñoom ak Hizbut Tarqiyyah seenu lëkkaloo dafa yàgg ndax su ma fàttali ko lépp lu ñu mës a def rek am nañ ko ñun du màggal du gàmm ba ci grande journée côté yi nga xamante ne bii defoon nañ ko stade Demba Diop ñëw nañu indi seen participation boo xamante ne bii ràññee na lool. loolu nag ku bëgg lu baax rek ak xam sëñ ak ndimbal sëñ Tuubaa ak tawfeex sëñ Tuubaa rek mooy doxee noonu kon ñu ngi sant bu baax sëñ Baara moom mi nga xamante ne bi waxtu ne mooy dox diggam ak ak King Oil ci mboolem jëf yu baax yoo xamante ne bii euh, bis yu mel ni bu amee ku ne xam na ne bu ñëwee indi ay basang pour taalibe yi toog ci durus indi ndox pour taalibe ci euh, naan ci kon loolu dëppoo naag ci sëñ ci bis kon mel na ni lim ci def sëñ Tuubaa gis na ko sëñ Tuubaa nag lu ko waaye lebal dina ko fay kon ñoo ngi ñaan seen Tuubaa dafa leen tawféexu àdduna ak alaaxira ba li ngeen ci bëgg yéene ko ci faskat yi kenn bañ leen cee ëppale barkeb seen Tuubaa jërë ngeen jëf